صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله الكريم ونحن على هذا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين آه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من داملني آه بربيني قدنا في اللول لول لول ما نقدر نبدل الزيار جسبرك صومي باهنا Euh, di am mbégte dellu siwaat si jotaay bu tedd bi euh, di fi fekk mbokk yi maa ngi gis euh, gaa ñëpp macha allah comme ni ñu ko waxee woon rek ñu ngi am yéenewu dugg ci lenn lu am solo lu ama am solo muy leeral benn pàcc bi nga xam ne ci diina la bokk te jullit yi réere ko loolu te mu waroon nekk li nga xam ne day nekk yi te jullit yëpp loolu Euh, moi la dimension politique de l'islam euh, Masha'allah, allah euh, loolu nag fas yéene naa si def juróomi waxtan. di wax islam siyasi. Manam l'islam politique bi nga xamné aujourd'hui amna na ñu koy ŋàññ am ñu koy de tous les souhaits Amna ñi xamné xam ne ñu koy ñu koy ñu koy ragal.

Euh, premier épisode de mooy je vais le consacrer à l'introduction on va fixer les bases euh, bases philosophiques idéologiques euh, bases doctrinales bases pragmatiques Il y a des wax dëgg yàlla dina dans leur culture ci l'islam. islam premier épisode deuxième épisode je vais le consacrer à la longue marche de l'islam donc l'islam bi nga xamné depuis jamono adam ali islam muy la première réalité islamique bi dox ba jamono yonte yàlla insa bi nga xam ne la mom ci mom khatma la euh, yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoo andi benn xarkanam muy l'islam prophétique muy l'islam muhammadien ñu jogé ci l'islam muhammadien dugg ci l'islam califal l'islam bi nga xamné euh dox na ci digënté seydina abbakar sadiq euh, umar ibn khattab usman ibn affan sidna ali eh, ibn abi talib karamallahu wajahu eh, islam bi amna na jeexit yu mu am amna tamit ay jafé jafé tamit yu mu am yi nga wax dëgg yalla loolu moy premier instant d'islam bi buñ jógee ci islam califal boobu ñu dugg ci l'islam dynastique ndax islam tamit jaar na ci épisode dynastie donc ay nit commencé ko dondante papa ak doom eh, mu am ay yàq mu am lu bëri bëri li nga aujourd'hui ba tey nous subissons les pots cassés il y a ça fait maintenant plus d'un millénaire après l'islam drastique on nak ñu gis après l'islam impérial l'islam bi xamné empire avec les attributs d'un empire dans un moyen âge bi xamné dafa sa réalité historique bi xamné buñu ne seule lunette rek comprendre ce qui s'est réellement passé aujourd'hui l'islam sous la colonisation ak l'islam après la révolution ak les lu mu jur ci ay jafé on va le revoir inshallah dans le deuxième euh, épisode bien la troisième euh, le paradigme islamique dans ses caractéristiques et dans ses principes Là est le paradigme islamique aujourd'hui il y a beaucoup de paradigmes qui ont été invoqués Euh, ils ignorent foncièrement sax li ñuy wax paradigme ils parlent de système mais ils parlent pas de paradigme donc euh, on viendra dans le fond de ce qu'est le paradigme islamique Qu'est-ce qui fait son authenticité Pourquoi Mounek la seule solution aujourd'hui par rapport à la crise, euh, je vais dire, multiforme, euh, multisectorielle, généralisée, bien que adouna bi yépp mu koy dund tay donc euh, paradigme boobu wax deug yalla bax na ñu leeral ko ndax man gëm naa ni bu leeroon ñu do julit sax ils vont revendiquer sa paradigme là parce que mooy nekk seen jàmm mooy nekk seen tawfiix mooy nekk seen sutura euh, quatrième épisode bi on va le euh, euh, passer ci leral islam politique bo nga xamné ne jaar-jaar yi mu am yoyep yëpp naka lañ ko jëmmalee Sénégal ndax Sénégal il y a eu des expériences de mise en œuvre de cet islam politique boobu donc dinañ andi quatre étapes yi nga xamné euh, islam politique jaar na ko fii Sénégal depuis la révolution bu Malick Malik Boubou Malick Sy Boubou bi nga c'était dans le Bundu au seizième siècle après révolution bobu euh, ñu jaar ci révolution bi nga xam ne wax la révolution Torodo wala avant la révolution Torodo sax la révolution Toubnane la révolte des marabouts dans ce pays là bi nga xam ne ngi am ci 1671 à peu près jëm 1678 ak naka la amé jeexit ci ay royaume yu nekkoon fi Sénégal royaume yu bari euh, bi nga xam ne allah euh, am nañ ci ay jeexit y a eu des chutes y a eu des rois ceddo yoo xam ne Daniel yaay a eu des musulmans yu dem jël le pouvoir ndax gisoon nañ ni yàq bi bëri na gisoon nañ ni tooñ gi bëri na gisoon nañ ni fitna gi bëri na ñu jóg jël sa responsabilité xam dañoo war a agir donc on verra révolution bi lan la apporté Sénégal euh, naka lañ ko doxalee euh, incha allah troisième étape bi di la révolution torodo bi xam ne moom Sénégal ñu bëri ñu koy waxtaanee moom la gars gën a xam moo gën a siw la révolution bi xam moom daal dam nga bon, c'était en 1776, c'est presque un siècle après la révolution Toubnan. Euh, ñoom Thierno Souleymane bal doxal ko euh, teg ce qu'on appelle un régime politique bu bien bi xam l'islam ils ont appelé ça l'almamia euh, on va voir lan almamia donc lan c'est ses fondements théologique d'abord juridique programmatique économique et sur l'angle de la gouvernance surtout bien que nous ne daf on va le voir au-delà de la révolution euh, Torodo bi nga xam ñoo dindi ce qu'on appelle les Deñanke euh, ñoom ci Bal on verra la forme la plus aboutie de ce qu'on appellera l'almamia dont ça a été incarné dans le salon avec l'almami Mamba Diakhou qui c'était presque au 19 e siècle donc euh, dinañ ci dugg bu baaxa baax ci quatre expériences yooyu ak lan motax euh bo ba sa euh, peine ba paré dafa bloqué Sénégal ndax dañ ñuy neub lu gëna a bëri suñu histoire war naa si ñëw incha allah euh, su may abordé parce que si thème boobu bëgg naa waxtaanee kenn ki xamé Sénégal dañ ko réeré lool muy Allemagne ba Diakhou Ba donc euh, macha allah et cinquième épisode bi nak je viendrai sur le défi les défis actuels de l'islam dans ce 21e siècle et ce nak j'entrerai dans le fil de ce qu'on propose en tant que euh libération ou la solution au islam donc par rapport à la politique économique aujourd'hui nous sommes dans une dimension bien mais on a des systèmes d'économie marchande des systèmes d'économie monétaire aujourd'hui on ne peut pas parler d'islam sans pour autant régler la question des liens entre le marché et l'islam on ne peut pas parler d'islam sans pour autant régler le lien entre la monnaie quelle est la vision monétaire de l'islam la monnaie vision on ne peut pas parler aujourd'hui euh, si jamono sans nous régler l'islam n'a qu'à réglementer la gouvernance avec les institutions L'approche la institutionnelle euh, de l'islam euh, l'approche euh, je veux dire organisationnelle de l'islam quels sont les principes de base de l'islam L'islam l'islam payé l'islam la islam ko un consensus les règles yi l'islam est ce qu'il accommodé avec ce qu'on appelle la démocratie L'islam islam dafa démocratique ndax islam nangu na république aujourd'hui au sens moderne du terme islam ban lien la avec ce qu'on appelle le positivisme jamono bi etc. Euh, et etc et euh, lutax islam nek un intrus dans ce siècle là lutax ñepp bañ islam jamono bi ñu koy teg tout tuuma diko ko joxoñ des sosal di yak deram et dit ça avec des fois la complicité passive de ay musulmans yi ils n'ont absolument rien compris tu vois, les introjets sur l'islam dañ lay wax ay waxi naxasa xandang yee xam ne da ngay xam ne kii il n'a absolument rien compris donc euh, on verra kon euh, cinq yi épisodes yi incha allah rabbi par rapport à l'islam politique nga xam ne wax dëgg yàlla aujourd'hui euh, vraiment euh, ñun ñu ngi ciy liggéey euh, maa ngi fàttali Sénégal ni Sénégal aujourd'hui dafa am benn parti politique bi nga xam ne parti boobu dafa taxaw moom ci jëmmal la pensée islamique muy rassemblement pour la vérité ànd ci dëkk RV parti boobu man maay secrétaire général bi ñun dañoo gëm ni alquran mooy suñu constitution lu ñu gëm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mooy suñu unique modèle loolu ñu gëm ñun gëm ni euh, yàlla moom kese ñu ilif te moo ñu moom dañoo gëm tamit ni charia euh, la ñu bëgg doxal ci biir réew mi dañoo gëm tamit ni le système de gouvernance actuellement moo feebar islam am na solution pour régler ko ñun nag nekkuñ ci ay rêve ak ay théorie li ñuy wax nii lu ñu xam la lu ñu mën a leeral la lu ñu mën a jëmmal la donc loolu xam naa ni dañ ci ñëw ci fan yi di ñëw incha allah da gën a leer ci bopp Sénégal yi waaye liñ jàpp bi juróomi mbir yi daal mooy li nga xam ne moo ñu ñor ñun quand on parle euh, d'islam politique kon tey moom c'est une introduction bi xam ne on aura la chance gën a yaatal euh, nañ bàyyi sax ay interaction mais yeneen quatre épisodes yoom du am interaction on va bloquer les ba nga xam ne képp da nga koy tourner képp du va exposer ndax euh, avons toll jamono bi nous xam ne bu nous. leeralul lan mooy l'islam, non l'islam, yi waxal l'islam. et ñoom bu ñu l'islam tout tout mal l'islam ba pare donc on est obligé de bien communiquer et de clarifier euh, avant que les gens communiquent à notre place parce ils l'ont longtemps fait depuis des décennies gars yi communiqué communiquer l'islam di xuuxal jullit yi ci l'islam di wax jullit yi leneen islam Euh, ba jullit yu bëri sax dañoo dem ba mujj réer seen diine ñoom euh, mu am lu bëri nag ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yor ay njàpp jamono bu ne sunna la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg la euh, jël soccu di soccu sunna la sunna mooy lépp li xamante bi mu ko doon def sallallahu alayhi wasallam jamonoom wala boog ñi def ko ci kanamam mu agréé ko wala boog mu wax ko incité ko lépp ay sunna la donc waaye am na sunna yu gën a màgg yi xam ne aujourd'hui jullit yi waxtaaniwuñ ci bokk ci sa la sunna politique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk sa sunna économique manam ci walu iqtisadi lu na ci ñew parce que ci bir 5e chapitre boobu bëgg na andi ben ben ben ben parenthèse bu mag a mag bi xamé ben section bi xam on va parler de iqtisaad islam bi maanaam l' islamique nga xamé ne économie boobu macha allah euh, naka la mën régler aujourd'hui les problèmes yu ñu am avec la super inflation bi nga xam ñu koy dund avec euh, aujourd'hui nous pauvreté di creuser avec l'inégalité nous mu a exacerbé un monde où il n'y a pas d'équité aujourd'hui il y a pas de démocratie sur le point économique démocratie e euh, la pauvreté c'est une fabrique on a une fabrique de la pauvreté donc islam en réalité islam dafa andi ay doomu def en tant que ay vicaire de Dieu sur terre li lieutenant d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, joxul leen suuf bi ne leen yéen a ko moom daf len ko dondloo te kat bu mag bi sax ko wax al waris koko Allah subhanahu wa ta'ala donc la ñu jox kon une administration d'une ressource bi xamé qui n'est pas illimité et qui n'est pas éternel mu jox ñu ko nag ne ñu nag euh, dundee leen ko ni yoré len ko né voici le cap nii lañ ko war a doxalee te wax dëgg yalla euh dafa yenu maanaa donc dafa yenu maanaa lu tax ma ne dafa yenu maanaa tubaab bi defar oto jox jox la oto bi defar réservoir ne fii essence lay jël defar beneen place ne fii ndox lay jël def beneen place ne fii huile lay jël bu dee da nga bëgg jaay téméraire maanaam quand on est téméraire pour ko que non man pourquoi may topp li yi wax non non non on oto bi ñoo koy doxal ni mu ñu neexee fu ma neex laay dugal lu ma neex nga jël fi war a am essence nga def fa ndox. fi war a am huile nga dóor fa nga dóor fa essence mais da ngay yàqoo tamit sa moteur ngay yàq donc adduna bi tamit dafa am kenn ki xam moo ko moom kooku mooy allah subhanahu wa taala lii mooy la l'essence doon paradigme àdduna allah moo ko moom moo décidé ba pare dogal naka lañ ko war a yoree fuñ ko war a yoree lu ne fa lañ ko war a dugal moom mënuñu ko tànkamlu ci addunaam bi nga xam ne moo ko moom ba pare ñun ñii mu wàccee si kaw àdduna bi tam moo ñu moom ah lii vraiment dina ci ñëw en en en en en profondeur incha allah li daal mooy cinq chapitres yi nga 5 cinq épisodes yi nga xam on va les aborder bon léegi nak j'arrive nak léegi sama euh waxtaan moy introduction à l'islam politique <coughs> euh, fi may tambalé moy ñun jullit yëpp nangu nañ ni islam. Euh, diine la waaye yemul ci diine civilisation la ñëpp ko nangu dañoo nangu ni islam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki ñu ko jàngal la yàlla moo ñëwoon kat kaa kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon ñu am nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam un exemple accompli yonent bi sallallahu alayhi mooy suñu exemple mooy suñu dalil ñun n'est-ce pas euh, yonent yàlla Muhammad mooy suñu mooy suñu qaayid ñun euh, waa les frères ñoo wax naan Muhammad qudwatuna ci wax naan ak ak ak ak sax ak jihaad sa biiru na donc ñoom dañoo amoon benn slogan bi nga xam ne euh, y avait quatre choses doon wax ne yàlla mooy suñu objectif yonent bi saa sam mooy suñu chef alquran dusturu na alquran mooy suñu constitution et le jihaad mooy suñu mooy suñu mooy suñu mooy suñu mooy suñu méthode donc man loolu ñun on les réclame on le réclame dañ ko gëm tamit donc yonent bi salaay salaam euh, yàlla yónni ko rek pour mu régler euh, diine yemu ci dafa réglé diine naam dëgg la waaye réglé waale na pénc bi et alquran moom le message coranique est clair Dieu dit dans le Coran que bàyyiwuma dara ci biir bàyyiwuma dara maa farat naa kitab kitaab min shay maa farat naa yàlla je n'ai rien laissé je n'ai rien omis kon on a bel et bien kon des solutions et des réponses euh, à tous nos problèmes dans le Coran bi moom déjà comme c'est une premier trait bi dañ ko war a teg d'après nangu ko ñaareel ba Idrissa Sam fekk na dëkk muy Yasrib nous mujj nekk Medina nekk une ville une ville bi nga plurielle l'islam a toujours accepté la pluralité une ville plurielle une société di ko sur la la la la dimension sur le prisme de l'islam sans pour kenn am problème loolu tamit am na jamono sasam ngi wax sànq en introduction mën leen d' accord nañ ni y' a un islam prophétique authentique et saint bi xam ne moom mooy islam bi xam daw na ci Médine mooy la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa islam boobu bu ko bëggee teqali ak islamu tey bu am dans dans ce monde là uute na am uute na am mooy que islam. Nous muy accommodé aux circonstances que nous traversé ci lay produire des réponses en réalité aujourd'hui nous avons politique Nous y a des figures qui sont les pères fondateurs de l'islam politique dans le monde figure beaucoup bokk euh, al Afghani ñom ñom ñom ñom dina Afghani ñom Muhammad abdou ñom ñom eh, muhammad eh, khan ñii la gay japp ni ñom ñoy les figure l'islam politique man d'accord mako d'accord mako euh dam koy wax sa ben xarit temps yële eh, jamal Afghani, franc-maçon ñi wax ni yëpp ay ponkal lañu ay borom xam-xam lañu ay mufti lañu bind nañu ay téere ci islam di bind ci charia di leeral di wax lu lu extraordinaire dama ne Jamal Muhammad euh, Afghani franc-maçon la woon Muhammad Abdouh mu tamit Égypte franc-maçon la woon ñii ñëpp ils étaient dans les louches ñoom ñëpp euh, Cheikh Ahmad Khan bi xam ne moom en Inde foofu dañoo jàpp sax moom mooy seen cheikh al islam waa ji moo fa gën a garaaw moo fa gën a yéeme moom tam franc-maçon Eh, afghani mu ngi bokkon suñu wax kaw kabal sharq fa lañu ñu kon bokk après mu dem bokk chapitre treize ñu wax loge treize cinquante bu Égypte loge bobu ay borom xam-xam ñafay fay bokk ay imam ñafay fay bokk donc lu jara baye xel la mu joggé fa après bokk Concordia ñëpp Concordia lañ nekkoon ñoom c'était maçon ñoom ñet ñëpp après mu jël mu jël bi créer benen loge sax tuddé ko Mahfal al Watani logement bataille ça existe en hein, catimini parce que Gamal Abdel Nasser ginnaaw sa réforme il avait interdit la maçonnerie en Égypte technologie loge yi nangu seen ay am solo donc kon ñetti ñi sont des figures yoo xamé chaque fois que suma gissé les occidentaux ak ceux qui lui wax ils parlent l'islam politique non ñetti ñi ils sont extraordinaires ils ont théorisé c'est pas vrai l'islam politique ñun bu ñuy wax ñun ñun on l'a pas pris c'est ay afghani ak ñoom Abdou non non non da bëgg mu leer depuis le début ñun on a une source claire moy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alquran alquran dafa jàngaloon dañu fay in fi fii shay'in farudduuhu ila allah wa rasul boo amé wala ci dara rek mais ne dellu leen ci yalla ak yonent bi ci yalla moy le Coran dellu ci yonent moy sa tradition donc kon ñun nous ne nous référons pas du tout à afghani wala à mohammed Abdou dont on les on les a lu xam ni ay jambar lañu amna luñu wax li xamé xam ne lu wér la am na tamit leen li xam ko wax dafa bokk ci agenda maçonnique bi parce que agenda maçon franc-maçonnerie ci àdduna bi franc-maçonnerie dafa am objectif ak ambition éliminer toute forme de religion dans le monde loolu naa si ñëw léegi su may leen la mooy le paradigme islamique euh, par rapport au paradigme bi nga xam ne je veux dire cabalistique et maçonnique mondial bi nga xam ne diine la nanguwul ci àdduna bi dafay xool nu mu xeexee diine yi nu mu yàqee diine yi nu mu éliminer diine yi bu la waxul ci ñoom Mouhamad Abdou ak ñoom Afghani gars yi lay wax da la non Mohamed Iqbal Iqbal c'est un penseur révolutionnaire c'est un libéral c'est le Bergson des musulmans euh, Iqbal euh, compréhension islam l'islam, il a beaucoup écrit mais Iqbal deux une référence islam politique c'est pas la référence Iqbal euh, était un homme de lettres un philosophe il a fait un fondement sa thèse sur Mohamed Iqbal donc Iqbal euh, du du référence ni ñuy islam politique il n'est pas notre référence wax dëgg donc euh, il était libéral euh, ñun déjà ñoo comme ça, un musulman ne pas être libéral dinaa ñëw la mooy courant courant yi fan la jóge ces courants là donc il parle de reconstruire la pensée religieuse de l'islam la pensée religieuse de l'islam n'a jamais été détruite pour reconstruire elle n'a jamais été détruite elle a toujours été là Elle dafa am amalgame amalgam bi mooy dafa am ñu jàpp ni dañoo war a euh, situation Médine maanaam on doit reproduire exactement la cité de Médine ñu jàpp loolu dañoo la cité de Médine réalité de Médine c'est une réalité géographique historique anthropologique et culturelle qui est là bi nga xam ne mun ñu ko dupliquer ci àdduna bi sant ñu ñu créer waat une cité de Médine fii à Dakar wala en Guinée wala au Mali non c'est pas possible c'est juste impossible li premier écueil yi nga xam ne ci politique le deuxième dafa am ñi xam ne ñoo jàpp ni non euh, euh, l'islam ñoom dañu comprendre on n'a pas encore épuré l'islam de la culture arabe Il y a des faits yi xam du islam c'est l'histoire des arabes c'est la culture arabe bu vous yi jël boolaa ko jàpp ni islam la ce n'est pas de l'islam li tamit problème la maanaam a-t-on réellement épuré l'islam à tel enseignement mën comprendre ni l'islam, islam la tradition arabe am sax ñeen ñu dem ba gëm ne Arabi yi seen xeet moo gën ci xeet yi ndax la langue arab moo gën ci langue yi li c'est pas vrai ñi du jàngal islam islam c'est une c'est une c'est un c'est un vivre ensemble islam c'est une religion bi xamé dafa nangu la diversité islam dafa respecter toutes les cultures islam jël ben culture jëbbal ko ben ki mo gën kéré lolu amul ci islam lolu c'est pas l'islam du prophète sallallahu alayhi wasallam l'islam prophétique bi tamit jungle, jàngale l'islam dynastique bi nga dynastie après biir suñu ay ay série euh, de de live les dynasties étaient fondées sur une famille bu ñu jàpp ne famille bii famille la dynastie Omeya, ñoo jàpp ne banu yi ñoo ci ay fi Omeyyade yi peut-être man kenn laa si jàpp ne baax la mooy Omar Ibn Abdel Aziz donc moom kese ci baax donc pour dire que rek ay dynastie amoon na fi jamono lislaam ñu am ay nit yoo xam ne jënd nañ leen ñi nga xam ne ay taabiin lañ ak ñi nga xam ne ay taabii taabiin lañ ñi nga xam ne bind nañ ay xadis yi nga xam ne xadis yëpp c'est pas vrai yéen tout ça mosu ko wax ils ont forgé des xadis ils ont créé des xadis di ŋàññ ay saaba yu baax donc lii xew na ci biir lislaam moo tax mooy lislaam dafa am beaucoup de choses yoo xam ñu bëri gëstuwuñu ko

War, euh, on va voir mais zakat bon fait une ñoo donc pour déconner, il y avait des gens qui n'avaient pas compris ce que c'était l'islam donc euh, nagam les fondements sax la ñu xamul sax en ce moment l'essence de l'islam Bien, xam fa laa bëgg ñëw léegi ndax l'islam gars yi bëri l'islam donc l'islam politique am a beaucoup bëri ñu Il y a Abul Ala al Mawdudi euh, Ibn Hajar donc nous on a beaucoup de euh, borom borom borom les prolegomènes maanaam Ibn Khaldun nga a fait li mu def sax euh, un travail extraordinaire donc euh, sociologie aujourd'hui la sociologie moderne bi ngay bëgg attribuer à Max, ñun gëm na ni Ibn Khaldun en est est le père fondateur la sociologie moderne donc il n'est pas le père de cette discipline là mais donc dire que il y a eu de la production intellectuelle durant tous ces siècles là il xam ne jullit ñu ngi bind ñu ngi bind di wax. di joxe xalaat joxe xam-xam islam politique mënul ignorer loolu yëpp waaye ñun cantonné wuñu ñu foofu dañoo bëgg ñu dellu ci alquran nga xam ne les bases de l'islam politique sont dans le Coran en réalité bon alquran nag dafa am deux problèmes le premier problème mooy yàlla moo ñu xamal ci alquran ne dafa am ay aaya dafa am ñaari xeetu aaya ndax su alquran waxee ne wallazi anzala alayka alkitab yàlla kat yonent bi sam ne ko kat man maa wàccee ci yow téere bi mu ne minhu aayatun muhkamatun hunna ummul kitab mu ne am na ci téere bi nag ay aaya xamee aaya yu leer la aaya yooyu ils sont ils sont clairs ñoom ñooy la base du livre mu ne wa uxarun ak yeneen aaya ne na mutashabihatun mooy aaya yooyu nag dafa am dafa ay lënt-lënt aaya yooyu neexu la xam pourtant ces versets là yu si gën a bëri touche des versets normatifs versets qui nga aujourd'hui am na ñoo xam ne ñuy warante te aaya yooyu réellement du ay du du aaya du bokkuñ si aaya muhkamaat yi aaya mutashaabih war jug ko donc aaya les yi nga qui vont prêter à équivoque mais loolu c'est normal c'est normal surtout dans le champ de l'islam politique c'est très normal parce que dans le champ de l'islam politique bu ñu fàtte ni l'islam euh, diine bi madame, diine islam diine bi dafa lay tàmbalee diine bi dafa am juróomi juróomi mbir dafa am juróomi degré juróomi mbir mooy lislaam lislaam nag fii gars yi ñoo jàpp ni lislaam mooy mooy mooy li ko tabaxee maanaam shahadatu allah da nga gis bee passé barki démb non astafurlah semaine bii passé weekend bi dama toog sama sama sama sama sama sama yeneen bébé yi donc euh, ñi may jàngal ñoom dama la mooy premier hadis ma sax xaw ma premier hadis <laughs> donc mais macha allah ma leen léegi man xaw ma ko jàngal leen ma ñu ne ma premier hadis mooy buniyal ñii ñoom ñoom ñoom amaat la ñoom amaat ñoom soo ñoom Mouhamed ñoom ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay xale yu ndaw la kenn amatu dix ans euh, kii quatre cinq la am euh, kii huit neuf ans et cetera ma leen bon ok. يعني بني الإسلام على خمسة دوالي لول ميتك يسبيك يعني ما شهادة لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم رمضان وحج البيت ما يستطاع إليه سبيلا ملين أوكي سيكسلا لما يعني لي مو إسلام ملين نتاك ورمو ساسي بان إسلام إمي سبيان ومين يوم جانجل حديث بخامكو آه، جابري مو إسلام ملين جوخ إن متافور pour nous avancer vite. Ma métaphore est la suivante. bon soxlé tabax keur parce que la la hadith en question parle de tabac. Bounir, le verbe bana c'est le verbe construire n'est-ce pas bana donc euh, bounir l'islam ala khamsin on a bâti l'islam sur cinq piliers cinq piliers ça signifie pas que l'islam. est islam c'est un bu cinq piliers ne signifie pas que cinq piliers sont islam c'est comme le on a construit ma maison sur cinq facteurs. Le fer, le ciment, le sable, l'eau et euh, avec le béton mais mënuma wax ne kër lii la L'île lañ tabaxee kër mais si boo ñëwee si kër sa doo gis boo duggee ci tu ne vois pas de béton tu ne vois pas de fer, tu ne vois pas l'eau, tu ne vois pas le sable ce n'est pas du sable tu vois une maison qui est prête mais lii une matière première bi xam et que à chaque centimètre carré ou euh, le millimètre carré du mur de ta maison effectivement il y a cela il y a du sable il y a du ciment il y a de l'eau euh, et cetera islam noonu il dañuy wax dañoo tabax l'islam ci cinq il n'y cinq yooyu l'islam. l'islam 5 mbir la ñu duggal ci biir cinq mbir jàpp bu baax limay wax juroomi mbir la ñu duggal ci bir yeneen juroom yi mo l'islam l'islam aqida la d'abord ben aqida la c'est une c'est une c'est une c'est un dogme l'islam c'est une idéologie il y a une idéologie bi xam boko amul tu n'es pas musulman te idéologie bi stan Sénégal fi ñu bari ils ne l'ont pas ndax boo demee bay discuter la sagesse d'Allah subhanahu wa taala wala le pouvoir d'Allah subhanahu wa taala boo koy discuter mooy si islam l'essentiel l'islam yow amuloo ko ñaax nga ko yàlla maanduwul ku ko wax nekkoo jullit même bu la neexee defal cent raak par jour su n'est pas musulman yàlla li mu àttee da gis naa si nangam d'accord naa si waaye am na nangam yoo xam ne nanguwuma ko d'accorduma ko tu n'es pas musulman islam aqida la d'abord aqida bi mooy fondement et lépp lu am ci àdduna bi c'est d'abord une, doctrine, une philosophie. Même le système binaire, le libéralisme, mais ce il y a une philosophie du libéralisme. Il y a la doctrine du libéralisme, moi l'essence même du libéralisme. Le le libéralisme. N'est-ce pas Donc, c'est la base. Donc, il aqida a dafa ñuy wax ay la finalité de l'islam l'islam il est chaque jour ce sont des moyens ce n'est pas la fin la finalité dafa am ñu bëgg produit bu ñu bëgg nga mel bañ na ko sax ba julli nga xam ne mooy mooy jaamu yàlla bi gën a kawe si jaamu yàlla yi ginnaaw zikr julli si moom dañ la wax finalité julli lan la inna salaat tanha anil fahshaay wal munkar donc julli bi julli lañu la ko ne comme un robot allah akbar allah akbar chaque instant non il y a une finalité à la prière cette finalité là mooy la prière doit def donc la la réalité axlaaq mooy la réalité comportement mooy réalité bu ëpp solo ci biir diine la preuve yonent bi sallallahu alayhi boo ko yàlla yónnee ci jikko la ko taggee yàlla tagg ko ci ay pouvoir magique tagg ko ci ay maqaama tagg ko ci ay xam-xam tagg ko ci ay richesse tagg ko ci dara lu may si jikko wa innaka la ala xuluqin azim jikko la ko taggee jikko donc jikko lu am solo la mooy li ëpp solo yàlla fa am jikko bu bëggee jullit jikko wu quel li ngay def si ay jaamu yàlla jikko yu lislaam namm si jullit boo ko amul sa jaamu yàlla yi amul solo c'est comme nga am feebar dem ci médecin mu jox la ay médicament médicament yi nga koy jël pendant des années te feebar bi dindeekuwul changé wul médicament yi amul benn sens yaa xaalis la tu dois laisser laisser ces ces médicaments là ndax le but c'était pas de boire des médicaments chaque jour le but c'est d'être sain maanaam wér moo tax jug xam na comment fi mu bëgg a waxee

Euh, euh, fa sajadu mala ñoom malaayka yi ñëpp fa sajadu illa iblisa aba wastakbara gis nga baat bi laa soxla wastakbara iblis dafa bañ ba pare dafa rëy était animé par l'orgueil l'orgueil n'est pas un du jikko jullit bu nekk c'est pas possible yi ne l'avarice y a euh, jikko jullit mënu ko jikkowu kon kooku il a raté coche wax dëgg yàlla kooku dafa dafa am na lu mu daal ndax jikko jikko yi moom l'islam dafa un ben lot de de comportement ils sont presque 70 dix ou soixante douze lots jikko sont des minima des fondamentaux peut-être un jour de life live spécialement y a un euh de l'islam la qui ay hadafam ci de l'islam. donc kon deuxième réalité ou dynamique bi deuxième pilier islam moy y ñettel bi moy as siyasa moy la politique

la politique mooy mooy mooy mooy mooy mooy defar naka ñoo la jëflante politique mën na sax dem ba instant yoo xam ne day tere julli nee naa fii au Saloum daa des royaume fii près du Saloum yaa des buur yoo xam ne terewoon nañ seen dëkk bi kenn fi julli jullit du fa nekk et et des musulmans ont été obligés soit d'émigrer wala toog fa di làqatu donc ba Maba ñëw libéré leen donc la politique détermine les grands axes de la cité. donc politique boobu elle est très importante sur le plan islamique moo tax siyaasi mooy troisième fondement ginnaaw suñu waxee ci wàllu aqida ak ci wàllu euh, ay ay axlaq siyaasi mooy taxaw ñeenteel bi mooy al muamalat mooy les rapports islam quatrième pilier mooy les rapports qu'on a entre nous l'islam a régenté et a réglementé yan rapport la ñu war a am ak suñu bopp mooy àq yi xam ne da ko amel sa bopp boko deful yalla dana ci atte ndax ci jaamu yalla yi ko bokk da nga amel sa bopay ak yalla régler na ak yi nga amel say morom nit yi ki soit musulman amna na yenn àq yi nga xam ne yu spéciaux bi nga xam ne musulman ko amel ñeen yi xam ne ay musulman ñu nak am nga yeneen ay ak yi xam ne àq yu spéciaux la ak ak yi xam ne ñëpp nga ko yamalé fi rek ñu ngi am bakkan ñu am dund donc ak yi yalla ko régler ak yi nga am avec l' environnement ndax l'islam est éminemment écologiste ñun suñuy wax ci RV incha allah on déclinera notre vision de l' écologie ak lan la ñu war a def pour régler le problème écologique actuel ndax le problème écologique actuel est un problème sérieux bi xam ne jaaxal na àdduna bi yëpp waa GIEC ak ñëpp ñu ngi bind di cëppi cëppi di yuuxu dañoo bàyyi yoon te yoon bi islaam joxe na ko bu yàgg on va y venir incha allah ci naka la ñuy régler le problème actuel bu àdduna bi topp. donc l'islam a réglé le rapport nous l'écologie l'environnement l'écologie nous la nature nous rapport islam tous les les rapports que nous avons avec autre que nous dans la société dans la umma je vais préciser que umma renvoie à une communauté musulmans et des non musulmans il s'agit pas d'un ay musulman kese kese nekk fa islam raciste. islam euh, ñàkkul bañ a L'islam ñeneen islam dafa tout le monde a sa place dans la cité il faut que nous sachions tam bu baax un mauvais procès à l'islam comme si l'islam tente de convertir tout le monde par force ce qu'il faut l'islam sa vocation n'est pas de convertir les gens euh, barki dem maa un ami weex dafa ma mais dans l'hérésie dans l'islam ndax l'Islam islam traité ndax islam dafa ne ku tubbee ko war a jàpp ko mais en vertu de quoi pourquoi ku tubbi ñu war ko rey c' est pas notre rôle euh, ma koy jox islam euh, euh, exemple Abdullah ibn Jahsh bi amee frère la ci Zeynab bint Jahsh kii bokk na ci premier scribe yu mu bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu mu bind alquran aay kii dafa murtad dafa dafa dafa murtad ci diine bi li ko murtad loolu lan la alquran wàcc na ay aaya wàcc na yonent bi sam ne ko bindal nàngam aye wàcc na yàlla ne na nàngam bindal muy bind di bind di bind ba fin bi ni mu waxee yonent affaire bi rafet yonent moom mu ne fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin eh, waay waay macha allah yàlla daal ba yàlla daal béni soit allah subhanahu wa taala xam ne mooy kii xam ne moo dàq dàq moo dàq sàq yonent sa sax jot ndigal ci wax googu ne ko bindaale ko ci aaya si aaya la bokk ci révélation bi la bokk wax boobu moom daf ko gàttu mu nekkoon kii du yonent kii kon dafay wax yu neex yi rek su rafetee mu ne ko bind il c'est pas un prophète il a il a abandonné l'islam pourtant yonent bi waxu lañ ko rey daf ko respecté il a le droit de rabat musulman chacun de nous a le droit de dire que je ne crois wala je ne crois pas ku taxaw ne man du ma jullit chrétien sont c'est son droit donc islam un problème de problème on fait de mauvais procès de fond en comble euh, dafa intolérance bi ñu bëgg la marque de fabrique de l'islam l'islam n'est pas intolérant. l'islam est très tolérant. l'islam est très responsable l'islam l'islam c'est pas à nous de le juger donc mu amalaat yi mooy le quatrième point le dernier nag mooy li ñuy wax al ibadat mooy les actes d'adoration mooy zikr woor euh, ñaan ndax ñaan tam ci ibaada la bokk donc euh, dem umra dem aji màq lépp yoo xam ne dañ koy def di sàkku rapproché wu yàlla subhanahu wa taala di gën a dëggal sa condition de serviteur dama man jaam kese laa duma dara lii mooy ay acte de dévotion cinq yi Moi les cinq piliers de l'islam dans son fondement premier cinq yi ko wat les cinq caractéristiques de base de l'action islamique le premier ce sont les objectifs On objectif yi finalité il faut bien comprendre sur chaque action sur chaque recommandation sur chaque prescription sur chaque ordre ordre quel est l'objectif et la finalité ndax y sant des choses pour les ay non son message li c'est pour les gens deux de raisons ay am xel waxal donc objectif finalité le deuxième point ce sont les règles et les normes les objectifs et les finalités il y a des règles et des normes règles yoyu objectifs yi ma tan on a fixé des règles en fonction des finalités on a fixé des normes en fonction des objectifs euh, mënoo comprendre l'idée té demoo ci c'est comme la relation qu'il y a entre al-haq et al-haqiqa. Le haq, c'est la vérité, c'est l'expression d'une chose. Ouais, la haqiqa, c'est la réalité. C'est la vérité derrière cette vérité-là. n'importe qui m'offre fa mën Donc, quand donc ku es xaq te eggoo ci xaqiqa tu comprendre la chose à mon compréhension de la chose tu tu tu sais la chose mais tu ne connais pas la chose ndax savoir et connaître c'est l'Islam islam lii ilmu la irfan la alim bi ak arif bi ñoom ñaar duñu benn ci biir islam alim il est dans des sciences écrites des sciences scripturales maanaam ay sciences scripturales la donc c'est des sciences yi xam ne koy bind di ko toxal xam-xamu diraaya nga yooyu xam-xam bi nga xam xamu riwaaya wa diraaya waaye nag al arif moom dépasse niveau boobu moom mu ngi ci wàllu xam-xam bi nga xam ne euh, ilmul man ilmul mafhum la du ilmul mantuqa waaye ilmul mafhum maanaam kii xam-xam bi mu am euh, min waraay uquul mu ngi ci ginnaaw cukkeel yi maanaam ci ginnaaw xel yi xam-xam boobu la jot donc loolu kooku aarif lañ koy wax donc pour dire que rek ñaari stade yi ils sont ils sont dañoo tàggat dañoo takkaloo waaye du benn objectif finalité euh, norme règle ñetteel degré bi ce sont les méthodes et les procédés ndax y a des objectifs certes d'un côté il y a des règles énormes normes y organisé la voie il y a la méthode il y a les méthodes euh, les procédés directement rek y andi ay toutes les qu'on appelle tout, ñu ils ont des méthodes différentes tout en respectant les mêmes règles et en ayant les mêmes objectifs et les mêmes finalités ils sont dans des méthodes différentes et méthodes qui ils se Quand on connaît suivant méthode bi def preuves te am na résultat sa méthode baax na werante méthode si ñàkk xel la bokk euh, méthode bi du sujet c'est juste un moyen c'est pas la fin ba tax ma ne jullit ñu si bëri xamuñu sax la mooy islam ju nekk xamuñu ko bu ñu ko xamoon yeneen débat yu stérile yi cee nekk on a des choses très très importantes très urgentes jullit yi war a waxtaanee aujourd'hui après pare leeral donc au-delà des méthodes euh, et procédés y a les moyens il y a les moyens et outils. Les moyens, beaucoup avec les méthodes. On a des moyens, on applique des méthodes, on respecte des règles, on entrevoit d'accéder à des, à des objectifs, régler nos finalités. Quatrième c'est les méthodes même les moyens et les outils la cinquième les quatre caractéristiques c'est l'esprit et le dogme il y a def nag objectif règles yi normes yi méthode bi moyens yi c' est sur un fond d' esprit dafa benn esprit bi nga xam ne mënoo ñàkk am esprit soo ko amul julit y a un esprit musulman y a un dogme de l'islam dogme bi nga xam ne qui est inflexible donc bu dëgër bi nga xam ne bokkut ak li nga xam ne yàlla ko bàyyi ne lii moom xalaat leen ko mu leen neexee donc kon nañ comprendre kon cinq en cinq laa xoon bii mooy le deuxième cinq mooy les caractéristiques il y a un troisième cinq les cinq ce sont les cinq qui qualifient toutes les actions dans l'islam une action peut être haram il faut que nous comprenions la politique islamique il faut nous comprendre la moelle haram À quel est le champ du haram La moelle li nga c'est interdit et que loolu amul débat il y débat yàlla may ñu possibilité débat leen je donne l'exemple de l'homosexualité dafa haram donc lii amul démocratie amul esprit d'ouverture amul tolérance c'est pas c'est pas c'est faux lii c'est des paradigmes importés par des bi la ñu paradigme évolué aussi. donc le haram est clair à à côté du haram y a le halal n'est-ce pas yàlla yoo xam ne dafa dagan nous dagan nag ñoo koy jëfandikoo ñoo koy xool ñu ko organiser ba tey daal avec parcimonie bañ koo yàq ndax yàlla daf ñu daf ñu obligé nañ bu leen yàq la israf fi diin voilà dina fi donc le gaspillage bi xamé l'aile, la paradigme bi paradigme occidental moderne le paradigme positiviste le paradigme kabbalistique paradigme monde de dafa jàpp de aujourd'hui il y a une surproduction dans l'humanité on produit presque pour 12 milliards de personnes nous sommes à peine 8 milliards il y a une surproduction bi c'est voué à yak li la et la nature a sa comptabilité elle tient sa comptabilité donc on... Euh, nous sommes qui ay tappale yoo xam ne tappale tôt nous allons payer les pots cassés donc le paradigme bi bi nek paradigme je le répète toujours et sans complexe man vraiment ci côté boobu mooy son intellectuel musulman on suffit aw ma complexe wax sama diine ma jangal et j'ai les moyens et les arguments scientifiques pour le défendre donc je suis pas dans dans dans le fanatisme et non l'islam l'islam n'a prouvé et prouver a ça mun naa prouver existence sur un point de vue scientifique et physique pour dire que nous nous devons nous armer de connaissances en réalité ci diine ndax diine mom yalla fi ñu woo ci xam-xam xam-xam mo wara jitu lepp lépp lu war doxal ci biir bi donc kon le halal tamit en champ clair bi xam yalla amna lu mu permettre lu mu maye parce que après tout aduna bi addunaam la moko mom daf ñu jox une gestion euh encadrée une gestion euh, je vais dire limitée euh, waaye nag joxuñu benn licence à faire tout ce qu'on veut comme on le veut non yàlla may ñu loolu non yàlla joxuñu loolu après la xalaal ya li nga xam ne euh, mën nañ ne makruux la ci biir ci cinq yi nga xam ne mooy les caractéristiques makruux boobu mooy li nga xam ne ko sib mooy li nga xam ne soo ko defee amoo bàkkaar waaye gën nga bañ koo def dans l'islam politique on va bien reconnaître on va bien travailler dans ces trois derniers là muy la makruux am li nga xam ne ñooy le mandub le mandub mooy le louable li nga xam ne il est louable maanaam li nga on t'oblige pas c'est pas une obligation de la faire waaye soo ko defee mooy li gën n'est-ce pas mooy li gën ak le dernier élément cinquième ñu wax al mu baax mu baax mooy li nga xam ne yàlla légiféré wu c'est ni obligatoire ni interdit ni réprimé ni louable on l'a laissé à votre entière responsabilité votre entière appréciation def leen ko bu leen neexee foofu nag y a la shura y la shura mooy on doit être dans un consensus on doit on doit se consulter pour dogal ko vous verrez que nag le champ de l'islam politique se trouve davantage ci diggante ñett yooyu diggante ñuy wax al makruh al mandub wal mubah ñett ñun dañuy surfer sur un point de vue coranique et sur la tradition afin d'apporter des, des réponses claires par rapport à ce que nous sommes en train euh, de vivre. Rappelez-vous, l'islam islam, elle n'a que quelques situations. Islam, mën na situation d'un pays qui est déjà islamique. Tout est islamique. Le paradigme est islamique. Les populations sont musulmans. Islam, nous est anti-islamique. Le paradigme est satanique. ba pare ñu tënk fa jullit yi foofu islam dafay am yeneen moyen d' action beneen beneen beneen déploiement lay am si dëkk boobu bokkut ak benn dëkk bi nga xam ne il est neutre on n'interdit pas l'islam on on on on sacrifie pas wala boog on nekk ñu di ko di on s'acharne pas sur l'islam donc on on vous laisse vivre seen diine waaye dëkk bi il n'est pas islamique donc euh, islam ci dëkk yi yëpp su fa nekkee ni muy comporté wu du benn moo tax l'islam a des l'islam peut avoir un comportement bien agressif et violent par rapport à l'environnement de ça me à la violence c'est possible euh, violence ce n'est c'est pas c'est pas une action mais c'est une réaction l'islam ne euh, me présenter sur pas la violence mais mais dans un dans un état de révolution de proposition l'islam me suis dans la dissidence mën dissidente par rapport à un modèle qui est là l'islam mën na ñëw coopérer par rapport à un modèle qui est là-bas donc l'islam n'a pas la même posture partout dans le monde il faut comprendre que l'islam s'adapte par rapport à la situation bu à ak objectif dans le court moyen et long terme ñett yi que justifie l'islam politique bëgg rek tey du ma dugg sax ci ay dans nos prochains numéros, on aura l'occasion de fouetter et d'entrer dans le fond du Coran. Donc, euh, sur le Coran nous avons 6236 versets hein, plus de 6000 versets dans le Coran Le wax euh, droit pénal c'est charia encore que charia ça la loi charia signifie source que signifie source elle signifie voir, koñ ça, « ça de la koy C'est un réservoir réservoir de valeur charia de koy donc madame, même les mots ça, nous ko contenu yi ñu ko jox daf si en réalité euh, je disais que sur ces versets là les petits ci l'islam lu réglés. régler l'islam réglé wul ay mbiru ko def li def leen ko lee ki ray len rey dag len bop leen le kële fóoti leen le non non loolu c'est vraiment l'islam réglé wul loolu c'est pas matul 50 versets dans le Coran dans tout le Coran nag laa wax matul 50 versets il y a des aspects du droit constitutionnel il y a un droit économique dans le Coran un ami à moi il est là-bas en Égypte def na ben tafsir tafsir Coran bi xamé euh ne iqtisadiya maanaam Coran, euh, il ko lire avec le nettu économiste di génnee ay principes économiques euh, dans le Coran qui sont bien professionnels mais on a étudié ensemble Le travail bu am solo wax pour dire que fof que nous aujourd'hui les leaders et les les penseurs musulmans Madame, ci xol euh, naka l'islam di joxe ay solutions par rapport au problème ndax l'islam toujours dafa ñëw andi solution dafa japp ni solution et le musulman musulman bu nek kenn ku ci nek Muusa dafa jàpp ne solution la par rapport ak jamono ndax yalla daf ko daf ko wàccee jox ko ben criftif jox ko masuliya une responsabilité da ko nag doxal responsabilité bobu donc euh, les versets qui traitent de l'économie de la gouvernance gouvernance bi nga xam ne naa bu baax su may dugg ci modèle u almamia lan mooy la gouvernance bu islam andi lan mooy li ñu wara xam dans le droit bancaire maanaam parce que su ñu réformer économie dëkk mom cinq yi faut ñu réformer ko faut qu'on réforme la monnaie faut qu'on réforme le, la, la, politique de change, faut qu'on réforme la fiscalité. Il fiscalité faut qu'on réforme euh, la banque, donc faut qu'on réforme euh, le budget. Madame juróom yi mënoo xaalis te réglé woo ko monnaie banque fiscalité change ak euh, ak budget donc lii la ci y a des versets qui traitent ces sujets là et il y a plein de 100 versets le droit commercial mais l'islam, c'est plus de 40 versets. C'est du droit commercial pur. 70 versets, 71 versets. Le droit commercial, c'est le droit pénal. Le droit du statut personnel, le droit, droit, droit, droit de la famille. Le droit de la famille, handicap il y a le droit pénal. Mais pourquoi aujourd'hui, ça y est, charia, ou le droit ils sont braqués. Droit pénal. D'accord, d'ournit, raïnit c'est une construction coloniale. C'est une construction. Donc, il nous faut des gens qui ont travaillé pour ragalo de leur propre religion. on savait que religion bini mingo avec le, paradigme de l'occident choisir évoluer depuis maintenant plus de 200 ans maintenant ça presque 300 ans un paradigme qui qui qui qui est anti religieux d'abord qui était anticlérical au début, mais aujourd'hui qui est anti-religieux, un paradigme qui est sataniste. Paradigme qui est Bon, euh, premier aay dire, bon andi tey deux aay rek laa bëgg laal ay aay yoo surtout Chouara Le surtout Chouara euh, déjà ça, ça nous dit quelque chose n'est-ce pas Chouara ça ça parle de la consultation de diisoo fàttalikul ne musulmans musulman, ñoom ils n'ont pas le choix yàlla fi ñu woo une obligation l'obligation mooy waxtasibu bi hablillahi jamian maanaam yéen mom ensemble jàppandu leen ci ci buumu yàlla bi ensemble wala tafarraku fexe leen bu leen bu ne soyez pas désunis votre force est dans l'union et dans l'unité waxul nak ne war ñu am divergence devons avoir des divergences mais euh, waruñu andi Euh, divergence bi ñu am bokut ak euh adversité adversité am yalla yalla sant ñuko et lool ça ça nous rebondit ci sank waxu le président Macky Sall bu mu démé da fay protéger serigne ak nangam attention serigne ay nit lañu fi au Sénégal serigne yépp fii ay nit lañu dépassé wuñu maqam nit ñoom ñep sans exception légui nak taxaw ŋàññu sa diko saga diko xass c'est pas normal. même ku dul sëriñ sax taxaw ŋàññi doomu aadama di ko ŋàññi di ko xas di ko saaga c'est pas normal doomu aadama war na am opinion am ak avem si lépp lu xa lu xew c'est son droit su amee avem ke waru ko xas dañ ko war a waaye nag doomu aadama nag bu waxee si lu ñëpp bokk ku dafa am sañ-sañ taxaw ci xalaatam tamit donc sëriñ tamit ñu amee troit au respect noonu tam le citoyen tamit amee droit euh, de de de de se prononcer si lépp li xam dafa laal diine parce que diine même sëriñ moom la ko man diine yàlla bii d' accord ma fi benn sëñ ëppale ma ci d' accord ma ko wax dëgg yàlla kenn ëppale ma ko si ñoom donc amu ci kenn tam ku ma nangu ne mooy autorité diine bi fii si dëkk bi wax dëgg yàlla nangul ma ko wax dëgg yàlla ndax diine moom dafa am ay exigence exigence yooyu nit ki su ko taxawee matal ko da nga koy nangul xam ne kii sama kilifa la bu taxawul si loolu nag wax dëgg yàlla da ngay gis kii sama mbokk jullit la rek du sama kilifa si diine bi diine bi moom kilifa gi leer na mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xanaa ne yàlla mooy di tànn te imaam yooyu am du problème sant imaam yooyu wax dëgg yàlla leneen la ay maqaama la euh, ay cër la moo xam ay xutbu la loolu ku nekk gëm-gëm ci am na sa xutbu amul seen droit la man dama gëm ne am na ay aqtaab yu yàlla yàlla teg ci kaw jamono gëm ne am na ay afraat am na ay awliya donc te yàlla moom xoolu sant pour joxe ko ndax la wilaya n'est pas héréditaire yaa ko Sénégal la ñu bëgg jàpp la wilaya héréditaire donc un sëriñ tam bu taxaw wax benn affaire ci diine mais diine diine ute la même jamono saxaaba yi sallallahu alayhi wasallam dañ doon ute saxaaba dafay taxaw wax nangam kay ne ko nous sommes pas d'accord ak yow lii ak lii ak lii yonent bi sallallahu alayhi wax saxaaba yi ne ko attention li nga wax nii ci ban maqaama nga waxee ndax rasulullah mooy wax wala boog muhammad ibn abdallah mooy wax bu dee rasulullah mooy wax ki yàlla yónni soobaa ñu noppi nañu amuñ ci avis soobaa alxuraan dafa ne sami'na wa ata'na

dama ne kenn mënul tere jullitu Sénégal yi ñuy wax ci lislaam seen xalaat kenn mënul tere tamit suñu gisee ne mbir sàngam bokkul ci diine bi ne lii bokkul ci diine d'accord ni ko diine amul lii donc loolu moom vraiment beneen débat la mais man jàpp naa ni lu ñu war a bàyyi xel la islam diine échange la diine contradiction la diine ay uute la bi xam ne uute yu benn bu ci nekk dafa am base ak valeur te Euh, diversité boobu dama richesse c'est une richesse donc euh, la diversité est une richesse si Dieu avait voulu qu'on ait une seule pensée une seule vision une seule idéologie kon du créer sax ay xeet yu wute créer wala indien wala japonais wax mais Dieu a créé une multitude de langues ba min yi bañ sax si ay Ikhtilaf al wa alwanikum. La différence de nos, de, nos, de nos langues et de nos couleurs, de nos ayam, c'est kimtam la bokum yalla, kimtam la. Donc, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يلا il nous a fait des peuplades et des tribus yu outé di taarafu pour qu'on échange pour qu'on se connaisse donc échange boobu ñuy def ñu ci outé loolu c'est une richesse loolu ñu ko yàq waaye na am dans l'élégance jarul jarul euh, impolitesse jarul saaga jarul wax lu ñaaw nañu limité wu à dire nos avis que lii avis bi kii wax moom la engagé waaye diine waxul nangam nangam ak nangam man laa jàpp si diine parce que diine si moom mais on naa des imams qui ont des contradictions imam bii ne man fii laa sukkandiku pour décider nangam même imam bee moom ne man fii tamit laa sukkandiku tam dàq naa nangam et ñoom ñëpp ils ont raison donc euh, loolu moom lañ koo bàyyi xel waaye premier aaya ma andi suara yàlla ci wo doomu adama yi euh ci ci ci ragal yalla ak ci top yonent bi sallallahu alayhi wasallam fattaqullaha wa atiuni ay bi moy aaya 150 bu soora fattaqullah batu taqwa mom lu leer la lu sufyan kay firi ak lu bur yalla ak lu julti firi man so len sufyan kay wax naa ñepp ah. donc at taqwa euh kilifa gu mak firi woon na ko am ci imtisaalul awaamiri wajtinaabul nawaahi fi zahiri wal baatini min xaysu yarda ay laa min xaysu tarda donc topp digle yàlla yi li nga ci mën ndax mun ñu def lépp lu yàlla santaane on peut pas mun ñu ko fii kenn mënu ko fii donc yàlla woo ñu sax si aventure sincèrement mu ne wajtinaabul nawaahi mu ne waaye bàyyi tere yi moom ñëpp mu ngeen bàyyi lépp fi zahiri wal baatin ci lu feeñ ak ci lu nëbb ni ñu ko bàyyi si lu feeñ kese si lu nëbb ngay ngay tukki àdduna bi donc euh, lii la lii taqwa bii rek yàlla woo taqwa euh, ku mel ni Oustaz Barham Diop ne saan rahimahullah kilifa gu màgg boobu daan na wax daan taqwa bokkut ak xasiya donc euh, rabbakum ak du benn donc taqwa gën na koo yaatu ndax ragal la bu ànd ak wekk ak ànd ak yaakaar du ragal en tant que peur waaye ragal la bi nga xam ne dafa ànd ak mbëggeel ndax yàlla il a besoin qu'on l'aime dañoo war a bëgg yàlla dañ ko war on doit aimer Allah du question de peur xuuxal yàlla soxlawuñu xuuxal donc euh, moo tax ma ne y a des y a des y a des problèmes yoo xam ne ci conception bu gaa yu bëri am ci l'islam ak ci yàlla ak ci beaucoup de choses yoo xam ne gëm naa ni ay njuumte la gëm naa ni lu ñu war a waxtaanewaat la pour nit yi gën a repositionner seen seen diggante ak seen borom te loolu mun naa am ça va changer beaucoup de choses macha allah. donc ginnaaw ragal yàlla bu te toppal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla joxoñ ñu ci topp kon dans le modèle sax islamique la référence kon ultime ñun xam nañ ko il s'appelle Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul ñaar amul ñett donc lii moom baax na ñu koy bàyyi xel te lii alxuraan dafay campé sa débat la mu ne mu àndi nag fii dafa saxal fii yàlla dafa saxal ba pare mu soo ko dàq pourtant euh, la tradition mooy dàq ba pare soo ko saxal soo seetloo kalima bi ëpp solo bi xam yonent bi sasam nee na amul yonent moom ak yonent yu ko jiitu yëpp amul ku wax li gën laa ilaha illa allah wala afdalu ma qultu ana wa nabi min qabli donc kon ak yonent yëpp yi ma mu ne mooy laa ilaha illa allah laa boobu soo seetloo dafa ne laa ilaha dafa dàq Il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de fausse divinité, il n'y a pas de the gum de, de, de, dogme, de, de, de, de, de chamlangal, de tout, de tout, de blablabla. Lip. Mune illa allah lu allah donc kon dàq na li nga xam ne nekkul waaye saxal na illa li moom xarfu istisna am illa lu allah yàlla ya saxal donc eh, kilifa bu mag dafa wax naan laa ilaha illallah mu نفى ما لم يكن وأبسط ما لم يزل نفى ما لم يكن dàq na li nga xam ne mënta ne mësta ne wa absata ma laa yazal waaye nag saxal na li nga xam ne mësta ñàkk donc kon la tradition mooy dàq après soo ko saxal mais aay bi yëpp dafa def le contraire waaw kon nga xam ne kon nous sommes dans un paradigme bi nga xam ne qui est qui allie le matérialisme et la terre moo tax ñu tàmbalee ci saxal soog a dàq fattaqullaha waatiuni ragal leen yàlla te ngeen topp yoon ci yàlla muhammad sallallahu mu ne wala tutiu mu ne bu leen topp nag mu ne amral musrifin bu leen topp ay ndigalu ak ay jëfu saay-saay ak yàqkat yi mu ne allazina yufsiduuna fil ardi ñi nga xam ne ñoom dañuy corrompre ak di perturber di yak la terre wala yuslihun ñi nga xam ne ñoom sellaluñu te rafetaluñu defuñu islah il ne restaure pas ñi moy ñom Macky Sall ak gaay yi mu nekkal ak gaay fi nekk ñi wax ni instant ni alcorane di wax moy ñi nga ils sont pas dans la paradigme divin top ñu yalla ak yonent bi li ñi théoriser ak lu ñuy propager yëpp lu outé sax ak lu yalla ak yonent bi jangalé donc ñom ils sont dans le israf si yàq lañ nekk ba pare ay ñu ngi ay mufsidin lañ maanaam ñoom ñu ngi si fasaad da waxaat naan donc euh, al fasad la ñu nekk ñu ngi si yàq maanaam si pervertir la terre ñu ngi daganal lu Yalla tere ñu ngi tere lu Yalla maye ils ont une loi bu ñu créé bu uteeg loi wu yàlla sen loi ñoom daganal nañ sàngara neen dafa permis daganal nañu prostitution neen dafa permis daganal nañu riba neen dafa permis daganal nañu jeu de hasard dañ dafa permis ñu ngi dàq lu yàlla tëral ba ci en terme de testament en terme euh, de de de de d'hérédité en terme de mariage beaucoup de choses ñu ngi tere sax ay nit ñu takk ay jabar yu bëri donc lii c'est un paradigme bi nga xam ne qui est contraire à l'islam ñii la aaya bi di waxal surtout Shuara aaya cent cinquante cent cinquante un cent cinquante deux lii mooy premier aaya bi xam dama ko bëgg a tekk pour ñu comprendre ni kon y a un à suivre et un paradigme Le paradigme à suivre, il émane d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Le paradigme à éviter, mooy tout autre paradigme quel que soit le film, fi mu que képp ku tibbul ci Yàlla ak yonent bi yaa ngi ci bi donc kon ñun déjà d'accord déjà nous. nous, socialisme libéralisme euh, républicanisme positivisme euh, progressisme marxisme trotskisme euh, classicisme matérialiste marginaliste école d'Autriche ñam voilà Keynes les keynésiens les nangam maanaam ñii ñëpp nga xam ne dañu tëral yàlla moom dàq na ko déjà muy benn balaa bëgg a tàmbalee balaa muy ñëw si ñaareel bi fii yàlla daf ñu wax carrément li war a topp ak li warul topp waaye benn aaya ñëw na ci ginnaawam. yematul woon soo xam ne ñu war topp ñu topp daf ñu exiger ñu agir la la aaya bi wax mu ne falaa tutiil kaafiriin mu ne topp loo ma leen bu leen topp yéeféer yi les kaafir ñoo nga xam ne ñoo weddi laa loi de Dieu képp ku weddi loi wu yàlla bi yéeféer nga képp ku bañ a atte woo lu yàlla tëral tamit yéeféer nga yow il faut qu'on soit clair bu ñu bu ñu naxante yàlla na la yow wala tutil kafirin yow moom topp bul topp bul topp yéeféer bi bu ko topp mu ne wa jaahidhum bihi jihaadan kabiran mooy te da nga ko xeex yàlla fi ñu wookoon fii au jihaad dafa dee dèjà bu ñu topp le système satanique dajalique bi xam ne moo wër ad actuellement àdduna système boobu c'est le républicanisme naa si ñëw léegi naa ko leeral naa la quel est le paradigme aujourd'hui maçonnique kabbaliste bi nga xam ne aujourd'hui mooy daawal àdduna ak naka lañ ci forcer pour les musulmans du monde entier ñu toog avec une complicité déconcertante de ko nangu di accepter sans se battre sans essayer de l'enlever mais c'est lu extraordinaire donc mu la nag bul topp yéeféer bi mu ne wa jaahidhum waaye xeex ko nous ne xeex ko wa jaahidhum fait un effort bii jihaadan li nga lii kabiran jihad nakira la daf ko def sax à l'indéfini parce qu'on t'a pas obligé d'un type de jihad on t'a donné une panoplie de possibilités népp no jàppale won ko xeexee pour mën ko changer waye na que tu bu sérieux bu consistant bu fort bu am doole nga xeex ko par waxtan par naxante par le compromis par l'action par la politique par la violence il yëpp benn bu dafa am sa place et son heure yàlla nag woowuñ ci violence violence mooy le dernier des recours yeneen saa ba mu ñëwee tàmbali euh, son sa prophétie ñëwul di xeex il a été obligé xeex ñu ko poussé pour mu xeex xeex riposte la ci wàllu islam ñun islam dañoo gëm ni xeex jamono bu ñu si poussé ba pare joxatuñu choix la ñu mais tant que a le choix par les armes mais dañoo intellectuellement le jihad le est d'abord intellectuel jihad bi jihadu xam-xam jihad bi euh, proposition la Li nak dafa def ci c'est bi dafa am djuroomi grand courant xam nga fa tous les partis islamiques ñëpp ñu ko islam dañ leen dugal ci cinq grands groupes dafa am ñi ils sont dans dans l'islam institutionnel madame islamisme institutionnel boobu. Nous dañu jàpp seen islamisme qui est accommodant Nous c'est des gens qui xam par exemple Tunisie ou El Nahda seen islamisme ñoom lool euh c'est un islamisme accommodant El Nahda bobu ci moom origine ak maçonnerie xamna naa ko naa ñew ñëw de si Nahda bobu ci a une origine maçonnique des loges d'Égypte yi euh, euh, donc l'islam nous accommoder à la fausse république qui est satanique l'islam nous accommoder au ils sa se dafa l'air. des gens vont te dire que non la montagne depuis un siècle dégguñu islam l'islam kaas di xeex parce que depuis un siècle on n'a pas essayé d'organiser les pays des musulmans sont restés dans des coins et recoins de l'union islam sans qu'un chien ils n'ont pas pu ni vu l'opportunité du khekh pour à l'islam xam nga ne ak ils n'avaient pas vu l'opportunité du war pour pour l'islam C'est l'islam, l'islam islam d'autres qui étaient dans le djolof d'autres qui étaient dans le Fouta am droit dum sen diine len nexé sen deuk sax ni fay dox ay charia ay canabaak yëpp mais ñoom ils n'ont pas l'opportunité lu tax ñuy xex ñoom sen deuk mu ngi islam mu ngi fa paré ils sont pas acculés mais buñ démé demee ba ay colonisation ñew colonisation ñëw li ngeen am yëpp dara baaxu ci encore que colonisation mu ñëw fi Sénégal sax on avait trois systèmes juridictionnels il y avait des juridictions coutumières yoo xam ne ko bàyyi les indigènes yi il y avait des juridictions islamiques il y avait des qaadi fii Sénégal toi bi dafa fayoon ay dafa jël ay qaadi jox leen leen àtte leen indigène jullit Il y avait des juridictions tamit euh, occidentales madame, juridiction tubaab bien nga xam c'était pour des pour des gens yu amoon nationalité pour les gens de la commune yi nga xam ne nationalité française ñu leen di par rapport à la loi française Toi, bi sax man dama jàpp ni moo gën a maandu ñu fi bàyyi ndax ñu fi bàyyi ñoom may ñu droit ñun islam àtte ñu dañu

fi président sax bi dugg en fonction waatu ci alxuraan te ñun sax alxuraan war ñu ko waatee suñu diine waxu ñuy wat ci alxuraan da dëgg yàlla waaye fi diine bi sax dëkk bi sax gëmul alxuraan atte wo ñu alxuraan bo démé tribunal fekk le juge tok du ubbi alxuraan li muy ubbi moy le code pénal le code de procédure pénale té dossier bi donc euh, motax juge yi am ci kenn ñom ko ku moqal tout le code pénal ni tout le code pénal ñëpp koy tek du ubbi di lire ñom ñëpp sans exception donc euh, loolu dañ ci ñëwaat ci islam la ci wax ak lañ ci bëgg def ñun am na ñoo yaakaar ñoo bëgg forcer dëkk bi yëpp charia islam non c'est pas notre vocation c'est pas notre vocation nañ si ñëw léegi incha bon à côté d'un islamisme d'accommodation moy islamisme institutionnel boobu il y a notre islamisme bi xamé islamisme d'opposition la manam ni ñoom ils sont dans la dissidence bo démé ci parti mené ni Maroc mooy justice et justice et euh, JDB parti ils sont parti d'opposition dissidence donc euh, islamisme boobu ben islamisme il y a des pays à circonstances ils ont développé cette forme d'islamisme il y a un troisième type de service l'islamisme hybride comme ce que fait la Hamas au niveau du Palestine donc dafa nekk ci diggante ñaar yi y a des conciliations mais il y a des techniques tamit yi xam ne y a y a de la violence boole violence boole tam revendication bokk ci ay élection euh, gëm ni dafa dem au suffrage te am na dëkk yoo xam ne nangul dem élection texte yi moo tere sax ni képp ku sukkandiku ci islam amoo droit bokk xam kon dëkk yooyu ñun ñu ñàkk nekk dissident dissidents kon en réalité la dissidence kon a été créée par l'exclusion dans les textes d'une écrasante majorité bi xam ne ñoo jàpp ni islam la war a sukkandiku donc mu am ñeenteel courant bi nga c'est un islamisme pacifique li tu vas retrouver beaucoup plus en Europe où ce sont des terres d'impies des terres la yoo xam ne terre tappalekat la foofu l'islam dafa tumuraake wax dëgg yàlla foofu ñeme ni rawu islam ndax dëkku saay-saay la donc euh, foofu y a des revendications très maigres pour y revendiquer kese ay quelques droits minimum pour jullit yi ñun jullit ñoo fàtte nañu may droit yi def nangam bëgg nañu am jumaa donc c'est benn islamisme islamisme pacifique Il y a un cinquième courant qui xam l'islamisme radical donc ñu Al-Qaïda ils sont dans cet islamisme là ils sont violents c'est une technique de subversion la en réalité ça a été créé hors de l'islam ñi ko créé génnul après ils ont ni a fait la subversion dans la religion musulmane ont créé ay mouvement yoo mouvement ils se réclament l'islam et ils agissent contre les principes et les règles de l'islam naka ñu créé sax comme le wahhabisme Abdul Wahab le wahhabisme est un courant qui est qui est contre l'islam en réalité l'islam il est intolérant il est il est grave je parle pas de la salafia ñi se reconnaissent au salafu salih waxuma ak ñooñu donc si tu salafu salih ku ci reconnaître tu es dans la dans l'islam mais wahhabia ak li a ci principe ci takfir ci beaucoup de choses il nga xam de wax deug yalla ba paré sax ak élitisme bi nga qu'on connaît du judaïsme donc les euh, juifs qui ñoo créé en réalité donc les juifs eux, ils histoire xam nga may wax sank leen ne y a un paradigme qui est là qui est un paradigme euh, aujourd'hui maçonnique mais le paradigme il est kabbalistique et messianique même en réalité lu tax mu wax loolu xam nga tout lépp dafay démarrer ci judaïsme maanaam ci diine yahut pour ñu jàng tawret man yàlla dimbali mu may ma chance ma jàng ko pour ñu jàng tawret dafa am tawret bi ñuy wax laa Torah Beria la Torah Beria Torah Beria mooy la mooy la Torah de la création mooy Torah bi am ni actuellement ci àdduna bi mooy Torah bi xam ne kii la genèse jàngale lan mooy na yalla na la créé nangam ak nangam euh, beaucoup de choses ñoom les juifs gëmuñu yomal xiyaam comme ni ñu ko gëmee ñun ñun jullit ak chrétiens yi gëmuñ ko ni yomal xiyaam am na ni àtte dugg dugg safara ko c'est li may wax c'est grave ñu ko ñom jàppuñ loolu am na c' pas dans la Dora nekku ci Dora ñom li ñu gëm moy le jardin sax manam aljana bi yalla yalla ñu jàngal ci alcorane ñun dañu gëm ni aljana boobu mu ngi fi en Mésopotamie mu ngi entre le Tigre et le l'Euphrate foofay aljana et que le messianisme juif manam les derniers temps juif moy instant bi xam ne ñoo war a delluwaat vers ce paradis là fi am fa lañu jugé won di delluwaat fa waye am fa benen situation bu bes bi xam musu mosuñu ko woon am mooy situation naataange ak bànneex ndax ñom dans le monde bu ñu nekk aujourd'hui ñun ñii ñep nous sommes que des euh, ay figurants lañ figurants lañ la vision juive nak dafa wax ni le messie juif bo re ñëw à la fin des temps pour organiser waat dëkk bi ñu nekk si naataange di béggee nekk fële booru Tigre ak l'Euphrate il va abolir la Torah Beria la Torah bi actuellement, il va abolir toutes les lois bu Nek. nekk da koy dindi pour andi la Torah bien sûr la Torah Zilut Torah Zilut la war a il doit y avoir euh, lu bees lii nag moo andi beaucoup de mbir yu am ci il bi fii la tàmbalee a am ay courant yu gëm kon que boobu ñëwul pour ñu accélérer ñëw Messi bi dañoo war a abolir ñun la Torabéria rek dañoo war a inciter kon lépp luy moy ak débauche ak yàq dañ ko war a inciter créer la kaw pour que le Messi gaaw a ñëw pour ñu mën a dem ñun delluwaat suñu paradis les courant sabatistes fa la juddu Sabataay Lévi xaw ma la xam ngeen ko euh, les courant franquistes ñoo Jacob Frank xaw ma la xam ngeen ko. qui c'est un un héritier de Jacob Frank beaucoup de gens inspiré nous avons dit les juifs ñëw chrétiens en Europe pour influencer les écritures chrétiennes en Europe seigneur Jacob Frank pourquoi son inséparable qui gën a laa ko mën a waxee mooy mooy mooy xalifam ku ñuy wax Julius Frey mooy Moses Dobruschka Moses Dobruschka Julius Frey révolution française bi taxaw république sax ñom ñoo ko ndax le jacobinisme bi am en Europe ñu les jacobins le jacobinisme a été l'antichambre de préparation et de conduite de ce qu'on appelle la révolution en France jacobinisme boobu ñu ko doon porté ñëpp M. Boris, c'est des anciens yéhouts avec des francs-maçons ñoom sans exception kenn ce ci dit ils étaient ouvertement anticlérical anti diine Ils ont créé dafa ñu a créer la li nga xam ne dafa nar la ce qu'on appelle la république Ils ñoo xalaat la religion qu'on doit donner à la république un gouvernement doit avoir une religion Une religion du donc et il voulait pas que la république soit chrétienne donc, ils ont voulu créer une religion qu'ils ont appelée la laïcité loolu naa si ñëw dinaa ñëw laïcité moom mënumaa ñàkk ñëw laïcité parce que ñu bëri man dama gis ñu bëri ma koy laaj ma xam ni gars yu bëri ne comprennent pas ce que c'est que la laïcité dans ce pays là bon euh, lu tax euh, excusez-moi ma jël lu tax ma y a y a du franquisme ak du ak euh, nu koy waxee du sabbatéisme ak sax du messianisme juif ci li nga xam moom la ñu créé aujourd'hui tuddee république li may wax nii soo seetee euh, benn loge bi nga xam ne loge boobu mooy loge bi ko gën a mettre en en œuvre parce loge bi nga xam ne moo njëkk boole yahut yi ak chrétien yi ci benn même loge pour ñu xaatandoo ñoom ñëpp nga xam ne

ñii ñoo taxawal ce qu'on appelle la république vraiment su ma déggee sax ñuy wax république je suis républicain damay ndax en Europe surtout avec la troisième république nga xam ne ñoom Jules ñëpp ku ne woon je suis républicain dafa bëgg je suis franc-maçon en réalité ñoom ñëpp euh, ñoom ñoom Ferdinand Buisson tous ces gens là nga xam ne ñoo la loi de la la loi de séparation parce qu'il fallait séparer l'église euh, avec l'État paradigme bi moy paradigme bi nek aujourd'hui ñoo gëm ni yalla ak penc lañ ko war a ñu paradigme bi lañ japp ni erreur la té danger la dina ci ñew en en profondeur dans les prochaines live loolu melni man ñu may signaler temps bi de daa mel temps bi dafa guddi parce que ay wax na su guddé lu guddi dina day sonal gaay gaay gars yi xanaa bon bayima dag fi kon l'introduction je pense que c'est mieux euh, la prochaine fois Nous allons revenir au fond sur euh, le passage, mais avant de le passage dans les parenthèses pour Andy comment la maçonnerie a organisé les sociétés modernes, et comment la maçonnerie a un agenda, un programme, bien euh, pour dire que dindi plus luy digne ci kaw suuf Ils vont vraiment lu am solo qui yoo xam ne jàpp naa pour mën comprendre naka les religions monothéistes nekkee en danger euh, religion yu bëri yàq nañ ko pare naa tout lu mel ni le zoroastrisme parce que y a des pratiques yoo xam ne euh, li may wax nii sànq léegi ci saay-saay yoo xam ne ñoom ñoom Sabbatéiste Lévi Jacob Frank tous ces gens yoo xam ne ñoom les saay-saay yoo xam ne ñoo saboté diine yi dañoo fooye Dine yu bëri bëri par exemple tu verras euh, dans le zoroastrisme la religion Iran euh, tu verras des choses yi xamné man fi Sénégal dégg fi zoroastrisme wax ci pas sax genre cérémonie rek bi ay ah. c'est la pensée même euh, c'est l'action centrale c'est le principe du zoroastrisme qui était une religion ancienne bu gars attribué à Zoro euh, et que dans cette religion là religion d'opposition religion d'opposition moi il y a un dieu bu mag bi nga bu bi bu baax bi Ahura Mazda mo tax religion ñu koy wax le mazdéisme ak ben yalla bi xam moy Ahriman euh, yalla moy un l'idée idée gnostique les gnostiques du premier siècle euh, Jésus-Christ la gnose bi xam il y a deux dieux il y a un dieu inaccessible yàlla bu baax la bu sori ak un dieu bi xam méchant bi xam moom moo sàkk nit yi moom ay gars yi sommes que des émanations de ce dieu là kooku jox la démiurge cette gnose là moo irrigué dem na dugg si biir christianisme laal ko soppi ko soo demee si christianisme gis la scolastique ak lépp si àndandoo ñoom euh, Jean Pic wala boog Jean Pic de la Mirandole bi nga xam ne Flavius euh, Mithridate la nous avons des juifs christianisme ils ont apporté des sciences des connaissances ils ont dem évêques des christianisme Ils ont prêtres ils ont rites prêches donc euh, Flavius euh, Mithridate juif et il homosexuel donc euh, nous

taal bi ñi kess la leen jàngal def lu baax wax lu baax xalaat lu baax li moom mooy moom mooy jàngaleem mooy lu muy dund mooy nangam ak nangam ba pare na jox leen micro bi maître de cérémonie MC bi maître de cérémonie maître de cérémonie je rappelle toujours que c'est maçonnique le maître de cérémonie le MC mooy MC euh, su ma gisee si ay gàmm sax gars yi ne kii mooy maître de cérémonie bi damay tiit parce que le maître de cérémonie est un officier dans la loge mooy l'officier bi nga xam ne képp kuy jël parole moo la war a orienté mooy gunge gars yi tam ñëpp ñoo déplacé wu dans la loge lii c'est maçonnique lii warul woon sax dugg si biir ay gàmmu ak ay màggal ba ci gars yi def ay cérémonie officielle ak cérémonie nangam ak maître de baa ngi nii kii mooy micro central beeg c'est que dañoo nekk di di di di glisser vers le paradigme bi nga xam ne dañu ko imposer de l'extérieur te on l'a pas interrogé ni questionné ko di ko appliquer. et malheureusement, ce n'est ne pas normal ce n'est pas digne en tout cas ay borom xam-xam donc il euh, y a eu des religions beaucoup de religions yoo xamé ñom ñep même chose ba ci Marx Marx dit la même chose que les que la gnose Marx li mu gëm moy tamit cette guerre là entre deux mondes entre deux démiurge et un dieu lointain Marx mon si moom yahut le juif donc euh, Karl Marx a irrigué beaucoup de pensées dans ce monde là Karl Marx théorie sax une grande guerre qui doit opposer deux groupes les prolétaires et les bourgeois Nous rayante ba après voilà après nous rétablir comme le messianisme juif hein rétablir un monde bi avant le capitalisme Moi, comme le juif de wax un monde bi dans la Mésopotamie avant euh, perturbation donc le messianisme juif est présent dans beaucoup de courants aujourd'hui nous nous ne ñu ñu koy forcer si biir penc bi ay te dafay waaye rek dañoo am ay carence euh, en culture et en histoire buñ ko xamoon ñu ko woote on a quelque chose de plus pur de plus parfait lu gën a wér li xam ne mu jóge ci borom bi subhanahu wa taala borom bi xam ne moo ne woon euh, réformer la terre donc yéen ñii nit ñi bu leen bu leen yàqaat suuf bi ginnaaw mu ko defaree pare donc mais macha allah.

l'islam euh, aussi bien une vision politique un mode de gouvernance à l'échelle même mondiale l'islam il euh, dëgg a beaucoup de donc euh, on va l'étendre Inch'Allah, allah ou ko bu baax après soo ko song l'économie islamique en tant que tel iqtisad islamia nga xam La finance islamique une partie de la ci donc euh, on parle là de monnaie en islam on parle là de change en islam on parle là de fiscalité en islam Euh, on parle là sax de réforme judiciaire nag aujourd'hui on parle de justice justice waaye man lam yaxkum ya alxuraan daf ñu wax lu leer moom képp kuy àttewoo ci lu dul lu yàlla wàccee yéeféer nga donc euh, ndax ñun dañoo opté nekk ay yéeféer à nous de répondre à cette question là ndax ñun dañoo doyloo lu yàlla wàccee si ñun à di répondre tamit ba tey ndax ñun dañoo jàpp ne lu yàlla wàccee lu nit andi moo ko gën c'est à nous tamit de ba tey waaye di ma gëm xam ko mooy yàlla nëtërloowuñu te yàlla toogloowuñu li daal mooy li nga xam ne daal xam naa ko ci islam maa ngi gis temps yi ay wax yu bëri dama koy xool barki déew dama gis sam benn xarit bi nga xam ne dafa bind benn post post dafa xorom dañoo toog condamné injustice bi ñu teg Ousmane Sonko moom mooy du ci wax muy prétexte sam nee na am na injustice bu gën a ngand bi xam ne ñu ngi koy teg ñun yàlla si kaw suuf fii fii Sénégal bokale ba ngi fi gars yi waxuñu waxe wax ay waxu ay waxu politique kon nag lii amalgam la ak ñàkk compréhension ndax yonent sallallahu alayhi wasallam bu mu nekké màqamam bokkaale baa ngi fa woon yonent bi jékki-jékki lu dindi bokale bi dafa nekkoon di jéem a defar société bi yonent bu ba mu demee Médine nga xam ne rapport de force bi nekkul à la faveur du prophète sallallahu alayhi wasallam bokale bi mu ngi ci diggu Kaaba gi Kaaba gi y 360 idoles dans la Kaaba. pourtant jul ci kaaba lañ doon jublu yonent bi waxul nag dañ dem toji kaaba gi doon ko toji idool yi non il l'a pas dit génnewul islam dafa ne kon leen julli ñu jublu si kaaba gi ñuy defar suite bi Médine ku xam Médine xam na ne aay wàcc pour defar l'état aay yooyu elles sont médinoises les sourates là sont médinoises les sourates mecquoises parlent beaucoup plus de tawhid ci ragal yàlla ci màggal yàlla ci jaamu yàlla Mais les surates médinoises ont beaucoup plus organisé une communauté, une société. Chaque fois, je fais les gars, am a wax la li Ali la am lettre bi lettre Malik al euh, Ibn al Ashtar euh, lettre les fondements de ce qu'on appelle l' en la politique de l'islam mu ndax conseil ba jox ba mu nommé daf nommé euh, comme gouverneur Ce ko wax ni mu war a les axes les grands axes de l'État, état ci moom mooy ci biir lettre bu benn lettre bu état ci wàllu islam donc pour dire que rek on aura le temps dugg en profondeur de voir l'enseignement du prophète sallallahu alayhi de voir les principes contenus dans le Coran de voir opérationnalisation de ces versets là à travers les âges et surtout ici au Sénégal euh, surtout avec ma bonne nga euh, machallah allah ki euh, c'était le trait d'union en réalité donc l'Allemagne euh, bi mu tek nga moy li au 21 siècle par rapport aux problèmes que nous avons aujourd'hui et les problèmes sont toujours les mêmes on a un problème d'équité on a un problème de justice dans ce pays on a un problème de vérité on a un problème de prospérité les gens les ont nit sont xiif

tuddee ko les mardis de Mabba waaw xam naa su ma defee loolu mooy gën a comme ça ma xaw a yëngalaat Mabba nag damay fàttali Mabba xeexkat la woon daa yoroon jaasi yor fetal di waajal révolution man nag si xaar boobu laa tax fa laa taxaw instant yi dama taxaw temm ci xeex laa bëgg dem ci révolution laa bugg dem ci ñu soppi mbir yi euh, exclure moom benn moyen donc pour arriver à cela yàlla yàlla dimbali defal ñu tawféex ba mu pacifique incha allah rabbi donc euh, yàlla yàlla defal sutura defal ñu yiw yàlla barkeel réew mi yàlla wàcc fi jàmm yàlla sàmm ñëpp te sàmmale ñëpp incha allah donc euh, ñu ngi rafetlu teewaay bi wax dëgg yàlla ñëpp di si jiital soxna Aïcha euh, la grande coach des live di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi woon ci live ñoom papi maa ngi gis papi depuis le début bougé wul le grand soufi borom maa maani donc di ziare gars yi di saan macha allah ñëpp. donc xam naa ne on va s'organiser ba live bi commencé ak euh, bëri ndax gis naa ne y a des thématiques yi nga xam ne thématique yi yenn xam-xam yi sax bëgguñu ko donc euh, on aura des live yi nga xam ne dañ mën a développer en profondeur surtout lu laal l'islam ndax jullit yi dañoo war a xam bu baax la lu ñu am tant que xamuñu lu ñu am ils seront pas libérés te dañu nëbb lu bëri bëri si diine bi nga xam ne moo tax gars yi ba tey ñu tënkuñu bu gars yi xamee li xew rek macha allah tinkeeku dafay am par force. dinké bu day am té dinké ko war a jëmale ah inshallah allah yàlla na dimbali waaw met Lamine euh, depuis la Mauritanie ah Mauritanie ma ngi di ziar fofu mo j'ai sama sœur mu ngi euh Jagana donc euh, ñoom ñep wa wa Kaydi donc euh, Babacar Sadikh ma ngi lay ziar bu baax baax donc Alassane Bari ñu ngi leen di béggé lu béré bari di contane ci ñep di ziar ñep nak di ñaanal yalla ñep tamit yalla def doole ñu sutura doole ñu jamm doole ñu yiw. Euh, defal ñu tawfiix donc euh, ah baa nga sadiq il faut nga dabu delluwaatal au début waaw delluwaatal au début nga xool sinon yeneen carte yi di ñëw dem nga xaw a doo xaw a gis bu baax la fil conducteur donc euh, macha allah eh Moustapha Kane ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waaye Ibrahim waaw Ibrahima Fall dafa mel sama sëriñ yëpp a ngi fi de sama sëriñ yu mag yi man mais Barham gisuma fi Barham de mel ni Barham dafa dem moom. donc euh, ñoom Saliou maa ngi ziar gars yi donc euh, ñoom Pape Moussa macha allah di nuyu ñëpp maarifa tam nga xamante ne gisuma ko fi maarifa xam naa kon tey mu ngi nelaw ndax suba nag jour ouvrable la donc am na ñu bëri ñu ma doon bàpp ne ma naa commencé vingt deux heures man leen wax dëgg yàlla vingt deux heures moom loolu xale yi tëddaguñu donc il faut ñu bàyyi ba yenn xale yi perturbateurs yi mooy les répondeurs automatiques yi ñoom nga xamee ñoom pour ñoom lépp opposition la lépp xeex la xuloo te fekk. opposition lenn ben niveau et des fois proposition yi war a la proposition doit avoir le début le le le le le le dessus euh, allah sur l'opposition donc mais yàlla la na ma euh, maa defa nelaw na ah papi da ngay da ma kaañoo maa defa maa defa du nelaw de dafay dóor ay dok saa day yengal ay mbir saa day yek ci ci kawa kaw di wàcc <laughs> machallah mais kontaan naa ci wax dëgg yalla ziar naa ni sama gars donc prenez bien soin de vous. Eh, yalla ya yalla ya yàlla sàmm leen dëgëral leen donc wa rahmatullahi taala wa